maa ngi tudd Soxna Asta kan Kane euh, euh, responsable APR à Guédiawaye présidente des femmes Benno Bokk Yaakaar commune de Sam Notaire euh, membre conseil économique social et environnemental. bëggoon xam exactement kan mooy Soxna Asta Walo Kane. waaw Soxna Asta Walo Kane de ab taalibe la taalibe Sëñ ma juddoo nag Guédiawaye màggee Guédiawaye yaroo Guédiawaye Euh, lépp lu ma def si si sama euh, lu si ëpp géejawaay laa ko defee. Euh, ñu bëgg a xam kañ nga dugg ci kujje politique bi. boobu nag bi ñuy dugg si si kujje politique bi bi ñuy ñun bi ñuy politique di si dugg boobu dafa fekkoon. son excellence président Macky Sall mi ñu doon jàppale mi ngi woon opposition ñu si opposition lañ duggee si politique euh, maa ngi si dugg en deux mille deux mille deux mille kii euh, deux mille huit fin deux mille huit ñu demee woon Dekkal Ngor ba bi nga xamante ne ni son excellence récépissé am génn na ñu ànd ak moom si biir APR e ba suñu jonne yàlla tey. Mhm. ma bëggoon xam kenn moo la dugal ci politique ak lan moo la poussé ba nga dugg ci. waaw politique nag kenn dugaluma si kenn xëccul sama loxo jàpp ma présenté ma benn leader déedéet loolu amut man dama yoroon sama atelier couture di ñaw vraiment di jàngal xale yu bëri yu nekk géejawaay métier am fa samay clients yu bëri macha allah xaw ma woon lu dul ñaw atelier couture laa yoroon. di gubal sama bopp di ñaw euh, en même temps si biir atelier bi dafa amoon ay élèves jàngaale métier bi en même temps si laa doon recevoir samay clients yi xam te maa leen di ñëwal bi nga xamante ne nii dem nañ ba xam ne mënatuñoo gis courant si jamono yooyu courant amul doon toog une semaine doo gis courant mu metti woon loolu suñu boor man si laa arrêté woon ñaw bi ma xam ne nag ma nekkuma kuy tëdd mënuma ko sax. Euh, yàlla dogal un jour may seetaan télé jàkkaarloog son excellence président mag Sall mel ni dañ ma ne jëmmu ji nga war a jóg dem jàppale ko si laa jóg nag di def samay euh, nuñ koy waxatee sax si laa jóg di def samay samay di def samay recherche di xool fan laa war a aw ak nan laa war a def vraiment ba jàppale son excellence si base bi ma nekk ci nag mu metti woon lool xam nga boo si soog a dugg te musoo ko def dina dina dina metti mais nag sunu borom dimbali wu si nag dimbali woon ñu si baax baax na sa booba jamono ay quelques responsables ñoo fa nekkoon mais yàlla dafa fóotoon xol yi boole xol yi mu doon mu doon benn mais ni yàlla dafa ñoo déyandoo sunu dara mettiwul woon sunu dara vraiment jafewul woon. dañ doon cotiser deux mille deux mille pour fay suñu siège département yàlla dogal na deux mille deux mille yooyu ñu doon cotiser sama bi la njëkk a tege man maa doon man man man maa doon encaissé euh, maa doon encaissé xaalis bi lu mat ay six mois si laa ko jëlee nag jébbal ko sama sama sama benn mag bu bu nga xamante ni bu dajale jotee ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw cotiser suñu deux mille fexe. ba ñu fay sunu sunu sunu sunu permanence waaw booba boo fekkoon permanence bi da ngay ree sax rek naa ay trente personnes xajuñu si biir te effectivement noonu la demee woon mais lañu doon génn si biti sax di di di di di di teg foofu sunuy banc lal sunuy basang ah lal basang gi nag moom mu ngi juddoo école 15. waaw avant ñoo am permanence lal basang yi foofu la juddoo école 15 ba nu ñu amee permanence deux voies notaires yi hmm, ay banc traverse lañ doon teg parce que xajuñu woon si biir si biir si biir. chaise bi mu metti woon lool nag xam nga foo juddoo màggee fa yoro fa dañ lay mbalak léeg-léeg léeg-léeg nga romb ku la xam mu ree ba xolam sedd daan mu waaye ku leen di jàppale ngeen ngeen président Macky mu ree ni la kuy kooku mais yàlla yàlla dégguñu ak booba suñuy engagement ak booba suñuy suñuy suñuy maanaam suñu taxawaay ak sunu gëm-gëm gunge ñu ba 2012 ñu jël réew mi ak ñi ko àndal teg ko si loxo son sant président Macky Sall waaw ndax moom yaroom ak dalam ak teeyam day liggéey lu bëri di jëf di di day liggéey lu bëri di jëf lu bëri mais di wax tuuti moo tax askan bi en général boo doon wax naan dañ naan ah mooy ko yaru gi nga ni waaw mooy ko yaru gi vraiment mu nekkoon liggéey bu metti woon waaye liggéey bu yomboon ndaxte booba vraiment xol yi àndoon nañu tamit ku nekk loo amul sa moroom mën na la ko mottali waaw ku nekk loo amul sa moroom mën na la ko mottali Euh, loolu daal noonu lañ ko dundee woon biir APR département Guédiawaye mais man yow ma woon Guédiawaye rek c'est parce que dama doon dem ba au niveau national sama dëkku maam Anen Anen mi ngi bokk si région de Thiès boole woon tamit au niveau national suñu chaise nationale ak base bi mu doonoon liggéey bu métti c'est parce que lépp lu am amoon euh, chaise euh, nationale bëgguma woon di taa de réunion yi dama ko doon dem di ko fekkee comme man dama yàgg bëgg terrain bi damay ñëw di ko wàcc si base bi di ko partager ak responsable bi fi nekkoon ma ñëwee woon nag terrain bu baax a baax a baax ba ñu bëri sax tuddee woon ma <laughs> Gaynde Macky Sall vraiment loolu daal nekk la nga xamante ni daal sant yàlla la sant yàlla bu baax ndax sooy mbébét dara di bëgg dara suñu borom fekk si la si danga koy gën a sant bu baax a baax mhm. donc ñu gis ne da nga am cër bu baax a baax donc ci kanamu xale yi ay surtout ci kanamu femme yi est-ce que du looloo tax moo leen poussé tey ba ñu teg la tey ci seen kanam nga jiite euh, mouvement euh, maanaam euh, des femmes yoo xamante ne daanaka benn bokk yaakaar mi nekk Samnotaire. waa xam nga loolu moom histoire bu neex a wax la c'est parce que jeunesse su département Guédiawaye ñu nag ñoom ñoo jógandoo mën naa ni sax ñu bëri. tey nekk ay chargé de mission fii présidence man maa leen njëkk a paasal si oto ñu ñëw fekk réunion APR bëri na euh, réunion département bu ma saan am ñu bëri buñ ñu ñëwee maa leen placé ñu toog euh, mais jeunesse bi nag li ma li ma liyee ak ñoom ñoom ñoo bëgg seen bopp ma leen di nuyu bu baax a baax di nuyu seen seen président département. ñoom jàpp nañ lépp lu ñu yëkkati rek xamuñu ne astawaal am na wala amuñu nañ sol suñu daal dem seeti ko waxtaan si ak moom c'est parce que tàmm nañ heure bu ñuy def dara mu moo si njëkk a jàpp loolu moom ñoo ko wax man waxuma ko vraiment ba tey nag ñuy doxal loolu fàttewuñu démba ah man ma leen si sant leen si gërëm ndax loolu tamit cër la ah faamu euh, Sam Notaire faamu département bi tamit noonu lañ noonu la ñuy doxalee ak man tey noonu lañ mel ci man ma leen di nuyu au passage ndax boo xoolee ma sax niñ ma falee ma jiite femme Benno Bokk Yaakaar bu Sam Notaire fal fal fal fal bu sedd xol la ndax sunu siège département lañ ko defee te buñ koy def suñu siège département devoir notaire yi coordinateur yi nga xamante ni nii ñoo ŋàkk Benno Bokk Yaakaar coordinateur yëpp fekkee nañ ko coordinatrice yi fekk nañ ko ñu def ko suñu chef département vraiment muy la nga xamante ni lu lu lu lu am solo la ñoom it ma leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal di wax ni nii la rek ànd moom macha allah ah, neexul dafa metti mais ñoom comprendre nañ ni ndax ñoom ña fa nekk ay kàngam lañ vraiment ay kàngam lañu ay kilifa lañu ñu xam politique lañ ñu mën a politique lañ ñu bëgg géejawaay lañ ñu si bëri sax man naa ba ñuy politique sax man man jógaguma pour pël man man naa ñu si bëri ñoo ma féete mag bañuy ñuy politique man xaw ma luy politique mais xëy na ah seen baax ak seen laa biir ak tamit seen seen seen seen seen baax la daal ñu ñu jiital ma def ma seen présidente ma leen di sant di leen gërëm vraiment di leen nuyu nag bu baax a baax a baax. même noonu laa demee si les femmes euh, les femmes département Guédiawaye ñoom samay samay xarit lañu samay lépp lañu vraiment lu ma xewle kenn du leen ci njëkk ñoom lu ñu xewle kenn du mu si njëkk muy muy muy muy muy muy ànd bu rafet ànd bu rafet ba nga xam te ndax bennoo bi moom la son excellence président Macky Sall gëm moom lay liggéeyee ndax benn lam du tàccu après nu mu mënti may si biir bennoo la nekk waaw te ku ku te ku yokkul yaa wàññi ku yokkul yaawaa ñi ñu ne ñu déglu euh, message am boobu xam ne dafa bëgg a yaatal ñu koy ànd ak moom si bennoo bi di ko liggéey si terrain bi tey loolu la euh, monsieur le maire Alioune Sall bëgg Euh, ñu ñëw bu baax a baax ci débat bi gis nañ ni déjà am na réunion bi ngeen amaloon fa ca euh, mairie bu Guédiawaye mm-hmm. gis nañ ay problème financement et cetera mm-hmm. donc nga bëgg nañ nga wax ñu ci tuuti ak lan mooy problème te gis nañ ni vraiment donc président ma Sall bi mu faloo ba tey ay femmes yu bari yi nga xamante ne yaa leen jiite ba tey jotaguñu ay financement léegi ndax loolu mën nañ koo jàppee ne dañ leen a xawul yëg wala dañ leen a fàtte. waaw wax nga dëgg c'est parce que euh, convoqué woon na femmes yi Euh, si boo ànd ko suñuy kilifa euh, chef de quartier bi nga xam te ni moo jiite 33 com 33 non non 33 quartier yi ñi naan trent ñi naan 33 doyen ba mu koy nuy au passage vraiment ñoo na fekk ko mu noonu nag la nga xamante ni nii euh, quartier yi nekk commune Sam Notaire yëpp ñëw nañ ku nekk indi nga ko la fa représenté mu nekkoon liggéey bu am solo ndax loolu si mbirum développement la euh, muy comité consultatif bi nga xamante ni dañ ko war a renouveler ñu woowoon femme Sàmm Notaire di leen di leen di leen di leen informer ba pare di leen sensibiliser pour ku si nekk euh, fexe am GIEM euh, téye ko bu baax a baax a baax te xam ne fi mu ne dañoo jëm si ay renouvellement comme ni ko suñu kilifa yi waxee madame la ministre ma koy nuyu madame la ministre de la femme. ma koy nuy au passage vraiment bi ñu woowee au niveau national xamal nañu dañuy renouveler euh, comité consultatif bi mais na xamaguñ kañ la mais buñ ñu wàccee si base bi nañ ko nañ ko nañ ko waxtaanee ak waa base bi si loolu nag ñun comme ay ndaw lañ rek si lañ wàcc si base bi informer ko ñu ñu ko war a informer ba looloo waraloon réunion boobu euh, ñu ñu ñu ñu doxalee ko noonu muy nag lu rafet la nga xam te ne parce que dañoo bëgg. bu financement yi awatee si administration ba egsi biir département Guédiawaye jigéen ñi gis seen bopp mais 2012 ba tey euh, ki ko yor bokkut ak ñun camp c'est parce que ñu ngi si opposition bi ah lañ naan nag ku sa wujju di sëlam doo set sama yaay la maa ngi koy nuyu au passage waaye comme ni ma ko waxee woon rek xam nga bu fukki di gas benn di suul pax day bëri mais pënd du mën a am waaw nga xam ni bëggul sa ndam moom bu sañoon fi nga toog leader moo fay toog loolu heure bu financement yi ñëwee jaar si loxoom dina xool na mu koy doxali mais bu boobaa waaw bu boobaa jigéen ñi nga xam te nag vraiment ñoo fa ne di jàppale son excellence président Macky ak ak monsieur le maire Alioune Sall ñu si bëri dañ koy dégg duñ ko gis loolu nag vraiment nekk na nga xamante ni lu metti la ndax même buñ bokkul kan sax ah lii si mbirum développement la kon bépp jigéen bi yendoo yewoo biir département Guédiawaye war na see gis boppam donc yow nga nekk responsable bi nga xam ne vraiment kenn naataamleew ko ci biir géej waaye nga nekk responsable bu mag képp kuy def dara tey tuddee la ko wala yëgal la ko tey gis nañ ne vraiment donc li nga occupé tey ci ci ci ci ci ci réew mi ñu en ñu mën a yaakaar ni tey bu fekkee jiitee nga lu ci mel ni euh, maanaam association des femmes nga xamante ne daanaka benn bokk yaakaar lañu nekk bu fekkee amuñu financement est-ce que duñu yaakaar ni donc ñoom dañ leen a fàtte wala dañ leen a soxalul ci mbir moomu wala le président de la République ko yëgul wala. waaw loolu nag mooy li ci metti ndax jigéen ñi nga xamante ni nii heure boo leen nee jóg leen si son ak excellence président Macky Sall duñu tànqam dañuy jóg taxaw teem te deer bi même ni mu duggee Guédiawaye jigéen ñu si bëri gisuñu ko ñu si bëri bindoon nañ seen i seen i seen i euh, projet yóbbu ko fi koy yóbbu yóbbu ko fi ko war a yóbbu au niveau euh, euh, préfecture mais gisuñu seen bopp jigéen ñu bëri. bu fekkee day répété wu di répété wu waat heure financement bu ñu ko déggee si biir département Guédiawaye si loxo yi mu war a aw ñu si war a gis seen bu du ñu gis seen bopp kon bu yàggee tamit vraiment affaire bi dina dina dina dina dina doy waar bu baax a baax a baax mos nañ fee jot na benn financement ba nga xam te ne dafa jóge woon si Moustapha Diop waaw te loolu euh, foog naa ni ñoom ñoo woote seen bopp ñu financé du dëgg awul si administration bi nga xam ne moo ne département Guédiawaye mais pour wax la daal amul benn financement buy aw si administration bi nekk bi département Guédiawaye femme benn mbokk Yaakaar yi nga xam ne man ñoom laa a ñu ne commune Sam te gis seen bopp amul loolu nag man daf ma jaaxal. vraiment ndax problème kayit la wala am nañ ci am kayit wala. non du problème mu kayit c'est parce que jigéen ñi am nañ kayit ñu ngi seen GIE téye ko am nañu kayit. te tey si tey bu fekkee ñoom am ñu place suñu mën a dem liggéeyee wala am ñu ay moyens ñu mën a dem liggéeyee si financement yooyu financement yooyu la ñu yaakaar te heure bu Aliou ne leen ñu jóg ànd ak moom jëmmal ko heure bu euh, son excellence président Macky Sall ne jóg leen ñu ànd ak moom jëmmal ko muy taw muy naaj muy metti ah mais bu financement duggee rek ñoom ñëpp dajaloo awma awma te loolu ñu naan awma dafa nekk c'est parce que si télé laay waxee ah boo bu boobaa nag. war ñoo taxaw seetlu xool mbir mi lan lan lay nduróor ñun daal ñooy boole suñuy demee suñuy daqaar amoon nañ suñu tuuti xaalis di ko wëlbati suñu biir waaw chaque semaine ñu daje wala chaque quinze jours ñu daje tuuti xaalis boobu ñu amoon jigéen ñi xamante ñoo ko ñoo ñoo ko amoon si suñuy moyen bopp vraiment suñuy maman jàpp si ku mel ni suñu yaay Jeene ba Faal mu koy nuy au passage bi nga xamante ne nii euh, def nañ présidente des femmes Benno Bokk Yaakaar dañoo demoon seeti ko ziyaari ko mu kontaan ci vraiment jël benn som jox ñu ko daan ni nag dama bëgg boo ngeen eggee ngeen koy wëlti seen biir ñu nit nam ko waxee ma man ma jël benn som teg ko ci moo ko si tegee ñu jox ko femme yi femme yi di wëlbati seen biir dama koy di wëlbati wëlbati fi mu toll loolu la ñu toll amaa tamit yenn yi nga xamante ni nii euh, fa ma dëkk waa kàcce bi chaque semaine dañuy des sama kër ñuy ñuy ñuy lu ñu am di wëlbati di dugalante ba ko defee ko bëgg a jaay dem wut sa ndugg mu sew teg sa taabal ah ñuy jaay leneen ñi nga xam dañuy ku nekk daal si yooyu daal la ne di ko di ko di ko di ko wëlbati waaye amul benn financement bu ma sa aw si administration bi nekk bi département Guédiawaye ñu jigéen ñu gis suñu bopp. ndax euh, monsieur le maire Aliou mi ngeen di jàppale ndax mës na leen recevoir wala. waa xam nga Aliou Sall jàppale bu baax a baax a baax. ankay recevoir nañu këram biñ ma defee présidente des femmes benn bokk yaakaar ànd nañ ba këram mu recevoir ñu kontaan ci lool nag daal ni ah tey recevoir naa nag benn bokk yaakaar Sam Notaire ba pare moom bi ñu falee ba pare commune bi moom moo ko validé monsieur le maire Alioune Sall moo ko validé vraiment loolu loolu lu rëy la si ñun ndax tamit daf ñoo fital moom fital nañu wan nañu yoon wan nañu ni que ni ñu ngi mi ngi sunu kanam mi ngi sunu ginnaaw nañu ànd doon benn ñu ànd liggéey bépp jigéen bi yeewoo Sam Notaire ñu ànd doon benn ñu ànd liggéey c'est parce que moom loolu rek la bëgg ñun ñëpp ñu doon benn waaw. gis nañ ni itam euh, fu ay maanaam femme di daje bari na ay xuloo bari na ay kiiraange est-ce que amul ñu nekk seen biir di di di leen féewale wala leen. ankay du si ñàkk du si ñàkk xam nga loolu ak politique ñooy ànd. xam nga dafa am ñu ne si bindu teen bi la ko woykat bi waxee ñu ne si bindu teen ba gaañu amul baag la di coowaloo léegi ñoom jigéen ñi ànd doon benn bloc xëy na du leen arrangé waaw du du leen arrangé na xam nañ ni jigéen ñi ñoom ñoo yor politique bi ñooy mobiliser ah ñooy sensibiliser ñooy teg kaar yi te ñoo gën a sawar ñoo gën a am engagement te lépp lu jigéen ñi def yéene lañ koy defee jigéen ñi ñuy def yéene lañ koy defee mais bu fekkee ni yow ah da ngay bàyyi toog fee sa ruq rek lu jigéen bëgg lu jigéen bëgg def ngeen déedéet kenn du ko fi defee kenn du fi conférencier ah kenn kenn du fi woote réunion kenn du fi woote ndaje di woo ay jigéen bu leen dem bu leen ko fekkee bu ngeen demee man bu leen ma tuddati bu ngeen demee man bu leen ma woote bu ngeen demee sama yoon nekku ci jël jigéen ñi teg leen leen yàlla tegul Hmm? jël jigéen ñi teg leen fitna bu leen yàlla tegul c'est parce que ñëpp bokk ci yam am na ñi nga xam ne dañuy jàpp ni am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur yàllaa fi ne te li ñuy def jaamu yàlla la fexe nit ñi doon benn fexe nit ñi di yëkkatindoo di tegandoo du dëgg kon nag képp ku kuñ siy menacé naan ay bul dem di ba bul dem di li ba nga gëm lool it vraiment yow la engagé ñun tant que ñu ngi si yoon bi nga xamante ne moom la son excellence président Macky Sall bëgg moom mi am si ñun confiance ñu nome ñu jox ñu nomination te ñu dëkk géejoo di ko fa liggéeyee tant que ñu ngi aw si lu ko neex ak waawam ah gisuñ ñun la nga xam te ne moo ñuy moo ñuy moo ñuy moo ñuy moo ñuy mën a téye ba li ñu war a liggéey ñun duñ ko liggéey. xam nga loolu ay kilifa ñooy toog waxtaanee ko du waxtaanu média te bis bu ñu fa eggee dinaa wax man dinaa dinaa dinaa waxe fi ma taxawee tey dinaa wax sama position si kàttanu yàlla. waaw mais nag am nañu yéene suñu gox am nañu yéene si biir Sam Notaire am nañ fa yéene bu baax ndax nag wokkal ma sama ginnaaw day xasan amul fenn gis nga fii xasan si yow yore rek yaa ko mën a wokkal sa bopp ndax ñun dañoo jege askan bi dañoo jege askan bi ñu ngi dëkk si biir Sam Notaire di yeewandoo ak ñoom di jógandoo ak ñoom ak di tëddandoo ak ñoom ba pare tëjuñu sunu bunt tout le temps kenn duñu njëkk comme lu ñu waaye di wax mais teene ne kenn gënuñu koo ñeme kon nag wax dëgg yàlla séq ak ñëpp jàmm nag ma leen di nuyu bu baax séq ak ñëpp jàmm am yéene tamit sa gox ba am yéene bu baax si sunu gox xool xam jigéen ñi li ñuy daj xam sunu xam sunu imaam yi macha allah li ñuy daj ah xam leneen ak leneen ak leneen loolu ñu am yéene saafara ko. kon nag wax dëgg yàlla ah buñ sa eggee bañ wax bañ ko war a fañ ko war a waxee ñun bu boobaa dinañ dinañ wax luñ si xalaat. Euh, ñu gis ne itam membre nga conseil économique social et environnemental euh, nga gis nomination bu bees bii ci Idriss Seck ndax yow ànd nga ci walla. bien sûr naa ci bu baax a baax a baax a baax ñuy ñuy féliciter encore son excellence président Macky Sall si yaatu dënn bi mu am. ba tàll ñëpp loxo ni leen Sénégal ñoo ko bokk duñ ko paccoo duñ koy péncoo idit ñu koy félicité si oyof gi mu oyof ba ñëw wuy ji son ñëw wuy si son excellence président Macky Sall kon kay xel war naa gën a mën a dal te discours tayim bii ñu déglu au niveau conseil social environnemental gën na dalal suñu xel macha allah yal na yàlla lafal cat vraiment yàqkat yi wax dëgg yàlla na ñu noppi. na yi noppi bàyyi ñu liggéey Sénégal ñoo ko bokk su baaxee ñun la baaxal ah kon nañ jéem a jàpp si gaal gi fexe mu baax it ñu koy félicité ak ñi mu ñëpp macha allah. ndax euh, yan yan yan ñoo nekkoon sa relation ak euh, kii di Aminata Touré. waa xam nga Aminata Touré tam ñu ngi koy ñaanal vraiment euh, moo xam li mu bëgg si xolam yàlla na ko yàlla defal mooy li may faral di wax rek gis nga mandat. mandat boo gis si àddina dañ dafay jeex mandat boo gis mais na fekk jeexin ba rafet waaw waaye mandat boo gis si àddina moom pour dul jeex amul mais na fekk jeexin ba rafet ñu ngi koy félicité di ko ñaanal bu baax a baax. waa donc balaa maa ñëw ci ci ci ci ci ci euh, tàggatoo bi dama bëgg ñëw d'abord ci mbënd mi euh, lan nga en fait yan nga def maanaam euh, jëmale ko ci mbënd mi ak nan nga ko gisee woon. waa ñi si génn àddina jaale seeni mbokk bu baax a baax ndax neexul ah ëmb dafa metti juróom-ñeenti weer xale bi ñëw nga koy tette ñetti at pare nga dugal école ba mu am vingt ans vingt cinq an xëy xëy te dee bi gën a métti bokk na si dee ndox ndax doo gis bàmmeel doo gis dara. mooy mooy mooy bi. waaw mooy mooy mooy clandestin bi euh, dee ndox dafa metti doo gis bàmmeel doo gis dara. xam nga ni ñooñu seen waajur ak ñun ñi nga xamante ne sa Sénégal lañu dëkk yàlla jox ñu sa ay responsabilité suñu xol neexul waaye may ñaaxaat xale yi gis nga tepp-tepp moo gën yuréet nañu ànd ak dal fii borom milliards yi ñu fiy dégg ak boroom alal yi ñu fiy dégg ba tax ñoom ñu bëgg ni tey tey tey nañ am ñoom buñ leen waxoon fi ñu jaax dinañ gën a takkaat seen laxasaay ba pare ñu wàññi bëgg-bëgg yi ndax yow mun mënoon ni xale nga si jàng nga toll jàng métier nga toll wala si jàng école nga toll portable 700000 ngeen bëgg naa ko yor bëgg naa ko jox tamit sama coro xam nga ñu ngi jiñ yaay yi de mais yaay yi weex du rek mais si diggante xaw ma copain ak copine yooyu noonu yooyu ñuy def yooyu xale yi def di di génn ñu ngi fitnaal xale yu góor yi c'est parce que dañuy bëgg portable 700000 bëgg sava bu 500000 euh, bëgg di. di lekk lu neex chaque jour nga sañse chaque jour nga sañse te xëyoo gontoo nga bëgg koo teg si ki la yàlla booleel ngeen di ànd ah loolu moo perturbé xale yi loolu nañ xool côté boobu nañu xool côté boobu xale yi lan moo leen yóbbu xëy na yaay rek lañ jël sëf ko mais lu si ëpp du si yaay de ndax kenn du jur sa doom sonn si boobu xëy ni léegi nga naan alhamdulilah di ko xiital muy dugg si ndox mi ndax bu doon yaay yi ñi si ëpp ñuy dem seen yaay nañ ko yëg. mais ku dul tàggoo booy dem kon nga xam ne am na mbir mi leneen leneen la nga xam te moo la mu si biir te loolu lañ war a làqate ah sama rakk yi. ndax loolu seen yi sama rakk yi jeune fille laay wax mu ngi noonu nañu yemale seen bëgg-bëgg yi ndax nit ki bu la yàlla boole moom mu lay labat wala sax mu jël la def la soxna te yàlla mayu ko lépp la mu am la mu am nangul ko ko la mu amul nga muñal ko ko.

bu méttee méttee méttee di leen ñaan ñu delloo siwaa seen xel te delloo si waa seen xol defal seen xol yi Sénégal am na métier suñu mbokku pël Fuuta yi Sénégal yi dañoo jeunesse dañoo bàyyi lépp ak pël Fuuta yi tey soo demoon marché nii tey tey tey tey di di ndugg rek benn carotte ñu ngi la koy jaayee deux cent franc benn nawe deux cent franc te pourtant yooyu dañ ko doon saam te pourtant bu ñu demee ba fañ koy jëndee si àllu kaañ bi nii léegi-léegi boo jëndee deux cent du sa siwo du si xaj mais suñu mbokk pël fauteuil ñoo xëy jënd indi ko complot si prix complot si piri ñoom ñëpp di jaay benn carotte deux cent benn nawe deux cent mais loolu pour lan. maanaam responsabilité responsabilité bi da nga koy teg ci pël fauteuil. ñoom dañuy def li ñu war a def dañu fee ñëw pour liggéey mais ñoom xeebuñu dara te tey boo gisee gisoo benn pël fauteuil buy sonn mais lan moo tax doomu réew mi moom ah ak jigéen ñi nga xam te ñoo nekk senegal ngeen baal ma si kàddu di xeeb métier ah man fan yi dama dem marché Njaareem matul deux semaine mais man dama waaru place ma taxaw du ma bëgg a jënd place ma tax du ma bëgg a jënd ndax la loo laaj ñun la trois cent quatre cent loolu nit da koo mën a am hmm? lan moo tax suñu jigéen ñi duñu futteeku di di seen biir ah dem si ñaay bi jënd marchandise jënd carotte jënd nawe jënd géej jënd yéet ñoo jaay waa koñ bi su suturante jàppalante mais yëpp ñu jóg ko soxo Pël Fuuta yi mais ñoom dañoo mànkoo seen biir de bu kenn ne man karoot bi 300 laa koy jaaye kese des boo demee si table am 300 lay jaayee carotte bi loolu moo am Sénégal noo duddee mook sa ñàkk déggoo mais nayif bi ñu baal ma ñi si bëri dañoo nangu la yëngal seen yaram même Europe boo fa demee te nangu woo yëngal sa yaram fii sax a ndaxte fii di nga toog doo yëngal sa yaram xam nga loolu xale yu góor toog si bopp koñ yi di tuddee euh, boolu dof xam nga koñ bu ne am na fa. am na koñ bu ne am nga yaay ji nga xam day toog ba mu doy ku dëkk si kër gi ku dëkk si kër gi ku ñëw da ngay lekk dangay naan mais loolu amul Europe amul fa kon nag nañ dellu seen xel te bàyyi seen mbakken yi ñuy jaay si géej gi vraiment di féliciter tamit euh, son sant président mac Sall si si si si taxawaay bi mu jël pour wutal leen liggéey ñoom ñépp may tàllalaat loxo sunu sunu sunu rakk yi nañu bàyyi mbëkk mi fii lu ne am na fi tey koo fi dégg mu yole milliard ba la waxee fi mu aw ba egsi fi mu war a egsi te jékki-jékki sax am neexul hmm? jékki-jékki rek am noo koy def boo xamul métit bi soo xamul noo def ba am ko noo ko téye kon nañu ràmpe borom kër gu ñuul ñàkkul dara man daal si loolu laa leen woo di leen si ñaan te tamit suñu mbokku jigéen ñi tamit nañu ñemee terrain bi nañ dem liggéeyi ah fii liggéeyu jaay lekk dox na fi ah ñi ngi def lii ñii ngi def lii mais boo xëyee sangu ba sa diwoo sa karité yow sa télécommande foo zappe ba mu jeex nga zappe ba fa des foo zappe ba mu des nga zappe ba fa des loolu tamit da ngay indi say doom ay problème rek heure bu xale ba duggee nga xool ko bëtu amoo jom hmm, mais am na jom. xëy na wërsëga moo egseegul yow bi nga xam te ni yaayu yaayam yaay waajuram yaa ëpp tuuti expérience takka sa ndigg tonte jigéenu géejawaay ay jàmbaar as euh, waa jigéenu Sénégal jigéenu géejawaay ay jàmbaar lañu tonte jigéenu géejawaay ay jàmbaar lañu dañuy teel a xëy di guddee wàcc ah mais daal ñu ngi lancé waat appel bi ñun jigéen ñëpp nañ gën a taxaw takk suñu ndigg ndax kat liggéey ba nga xam te ñaar ko yor te bu neexee ñu jiiñ ko ñaar ñëpp. bu naqaree ñu jiñ ko kenn gi kon ñun nañ laxasuwaat jël suñu rakk yi jël suñu doom yi vraiment xiir leen sunu bopp xamal leen ni lii kat ndànk-ndànk mooy tax a am lu ne. Euh, ñu lay bàyyi nga tàggatoo ak Cheikh téléspectateur bu Leral TV yëpp ak say euh, soppe. waa Thierno a ngi tàggatoo Leral TV yëpp ñi seetaan soppee Leral TV yëpp. duñu seetaan ñu ngi leen di tàggu ba beneen incha allah rabbi di leen ñaanal tamit seen kër gi yàlla defal leen si lu kawe seenu jot waaw mu nekkoon euh, seen émission nay leex te xam nañ itam saa su ne ni lañ koy euh, amalee ndaxte xam nañ euh, tey jii kii di soxna Astou Walo Kane nekk responsable APR nekk itam présidente des femmes benn Bokk Yaakaar de Sam Notaire nekk koo xamante ne wax dëgg fa yàlla donc dañ ko jox cër bu baax a baax ci fi mu ne mu nekkoon ay waxtaan bu am solo ak ay question financement comme li mu wax rek ci ay message am mu ngi gën a ñaax jeunes yi nga xamante ne daanaka dañuy jël mbëkk mi donc ñu toog fii ci réew mi te jigéen ñi ñu gën a fas seen jom nekk ci terrain bi mu nekkoon ay kàddu yu am solo yu ñuy yu ñu amaloon fii ci émission nay leer mu nekkoon euh, lu am solo yitam donc di gërëm euh, ku ne yéen di ñuy safoo di seetaan ci Leral TV di gërëm fàllu mi nga xamante ne moom moo nekkoon euh, ci technique bi di leen jox dig daje incha allah ba beneen numéro incha